ma gën neex ci rencontre bi modi xalé yi ñofi nek xalé yi ñofi nek des jeunes de de quator de de de la quatrième de la troisième de la première et de la terminale et Cheikh Anta ce qui euh, le ko euh, sosoloon moo di gune Afrique parce que xam ngeen africain yi dañ néna na dañu yàq seen xel won len yeen mu nekku leen dara wu len dara wu len dara démb du ngeen tekki dara ëllëg momu mu ñëw mu ni déedéet xam-xam yépp ci Afrique la euh, nit ci bopam ci Afrique la jógee tay ji des preuves scientifiques que l'ancêtre des Anglais euh, celui qu'on appelle l'homme cédar était était noir n'est-ce pas mi ngi euh, nit ku ñuul la won euh, xam-xam yépp muy ci science bi muy ci diine bi muy ci culture bi taarix yi lépp ci Sénégal lépp ci ci Afrique la jóge ci l'Égypte antique waxuma nak Égypte bi tay mais Égypte bi nga xamné ne pharaon yi nit ñu ñuul la ñi nga xamné ne ñoo ñu ñuul n'est-ce pas civilisation bi la preuve c'est que euh, ces pyramides d'Égypte là yi nga xam ne tabax nañu ko 3500 ans avant ba tey ji tubaab bi li ñu xam-xam-xam mënatuñu ko mënatuñu ko tabax kan kay nga xam ne borom xam-xam yi foofu la ñu woon te ñoom ni ñuy tiitaroo seen borom xam-xam ñuy ñuy ay Platon ñuy Pythagore ñuy Socrate ñuy qui euh, et tout ça Thalès théorème de Thalès euh, comme Cheikh di euh, ni ko Cheikh Anta di waxee mënoo ko woon bind lu dul au pied de la pyramide d'Égypte parce que il fallait nga gis forme bi et cetera et mais nag dafa am sàcc ñu jël xam-xam boobu yëpp sàcc ko ni ñoo ko kii waaye théorème de Pythagore mi ngi woon ci ci téere ci téere égyptien yi 1300 ans avant Jésus-Christ nan ngay waxee ni yow lu juddu après 1300 ans avant Jésus-Christ yow nga juddu après nga ni yow yaa ko defar kooku kay moom waaye nag li ñuy wax rek. dëgg du du du dina gudde waaye du fanaan àll te Cheikh Anta lu doon wax la rek nee na uh, géej guy baawan nit ki loxo mun na koo te baawan tere nañu ko mu jàngale waaye tey jii fees na fees na université uh, université Cheikh Anta Diop IFAN Cheikh Anta Diop ta fu ñuy daanelee statut yi fu nekk ci àddina bi moom ñu yëkkatil ko euh, kii kon kay moom moo gañe parce que moo moo yore woon dëgg parce que man bu ma déggee ñu naan euh, gune Sénégal amuñu amuñu roykaan man daf may metti ku am Cheikh rek waxuma ñeneen de Cheikh Anta rek nga am Cheikh Amadou Bamba nga am Cheikh Oumar al nga am ñoom Mokhtar Mbow et cetera et cetera ñu ne la yow amoo amoo royukaay nga am si jigéen yi ndate yalla alin ah, Aline Sitoé eh, Diatta ak ñooñu ak ñooñu oh. nga ni amuñu royokaay xana kay dañu xëppiwul sen beut nañu xepi sen beut nak ñu xol en particulier Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui c'est un événement un peu particulier puisque euh, nous avions voulu associer une conférence à euh, un concert dans un style musical, un genre musical qui n'est pas forcément très représenté ici à Rufisque, mais c'était aussi une occasion de faire découvrir euh, aux jeunes ce genre musical qui est le jazz. Et la conférence euh, portait sur <laughs> un thème très vaste, mais on a demandé à nos deux conférenciers de, choisir l'angle qu'il souhaitait aborder. Et euh, c'est cet illustre personnage, euh, cette grande figure euh, de l'Afrique qui est chère Anta Diop. Et donc nous avons eu le docteur Awa Bokar Lital qui a présenté un petit peu l'homme derrière le savant, tout son parcours, toutes les difficultés qu'il a eu à, à mener euh, ses travaux, à, exercer, à enseigner, à chercher. Euh, et ensuite, euh, et un petit peu avant, s'était exprimé le professeur Aziz Salman Fall, qui a, pour les élèves, essayé de tirer trois axes principaux de, son combat pour essayer aussi d'encourager les élèves euh, qui étaient nombreux parmi le public aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Hein. C'était des élèves euh, euh, du CEM euh, Ablaïsadji, de Matarsek, CEM Matarsek, lycée moderne, lycée Ablaïsadji, lycée Camp qui sont venus aussi. vraiment leur, leur mettre un petit peu cette graine, leur donner l'envie d'étudier plus, d'acquérir plus de connaissances, d'aller au-delà encore euh, peut-être de ce que Cherenta a fait, hein, parce qu'on l'a dit, euh, nous a laissé de nombreux legs, mais le, ce qui est ressorti de, de toutes les allocutions aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se contenter de ces legs, il faut aller au-delà, il faut que chacun essaye de développer, de rechercher encore plus, de travailler, d'aller encore plus loin.